mbokk yi daal leen ak jàmm ku ci nekk ñu nuyu ko bu baax baal nañ leen àq yàlla nañu yàlla boole baal ñu teewe ko ay déwén yu bëree bëri bëri yàlla nangu ñaan yi nangu yi jaamu yàlla yi tamit lépp lu ñu ko ñaan rek mu nangul ñu ko en tout cas ah, xiir ñu bañ di def loo xamante ne nii du lu ko neex en tout cas Euh, yaakaar naa ne yéen ñëpp euh, war ngeen ci jàmm wari ngeen ci jàmm alhamdulilah ñi mu fekk nag ñu seen yaram sutante yàlla na yàlla fëgg seen bopp ba ñu ñëwaat itam ci ñun ànd ak ñun ku mu fekk itam ci fi nga xamante ni mooy hôpitaux yi wala mu fekk la ci ah, kaso yi tamit yàlla na la yàlla taxawu ba nga ñëwaat ci ñun incha allah en tout cas mbégte la ñu am euh, tey jii ginnaaw ba ñu wooree ba mu jeex daal di julli ba noppi itam waxtu wi jot ñu fas yéenee Euh, def ak yéen euh, émission bu mucc ayib spécial Korité laa koy tuddee ah euh, waaye dama ci ànd ak ndaanaan waaye laataa ma koy nuyu rek ngeen may ma mu nuyu bu baax a baax ñi ñuy seetaan di internautes yi nuyu bu baax a baax ñi jàpp ci émission bi waaye képp kuy kilifa diine wala kilifa aada nekk ci réew mi tamit ah maa ngi lay jox sa wàcc waaye di la nuyu ci nuyoo bi gën ci nuyoo di asalaamaaleykum wa rahmatullah Cheikh Bara Ndiaye moom tey mooy gan gi ñu fas yéene séq ah, waxtaan wu am solo ngeen xam ko bu baax a baax doonul ku may présenté te ci réew mi ah, di religieux waaye tamit di chroniqueur koo xam te ni day gëstu lool sax ngir mën a analyser tolluwaayu réew mi moo tax tey jii ci bësu julli gi bës bu sell bi ah ma dalal ko ngir ñu waxtaanee réew mi ak tolluwaay bi asalaamaaleykum Serigne Cheikh Bara Ndiaye. aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi irahmanirahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala uh, qaala isa ibnu maryama allahuma rabbana ansil alayna maidatan min alsamaai takunu lana idan li awalina wa axirina wa ayatan minka warsuqna wa anta xayru raasiqin maa ngi nuyu bokki jullit yëpp mm-hmm. uh, fuñ mën a nekk ci biir réew mi ak ñi nekk bitim réew ñi ciy jullit ak ñi ci nekkut ay jullit ñu ngi leen di nuyu di ñaan yàlla mu jéggal ñu suñuy bakkaar te nangul ñu jaamu yi koy jaamu te may ñu sutura ci kaw duniyaa bii te may ñu wér te mboole mébét yi am ak eh, taxawaay yi am ngir diine ak yi réew mi ak soqali réew mi yàlla may ñu xol bu leer ak kàttan guñ ko defe bañ def ko nu kawe njort di siyaara ñëpp ci julli gi di siyaara bu baax sëriñ Muntaxa Mbàkke euh, di xalifa général de Murit di siyaara sama sëriñ Cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu Cheikh Sidil Maxtar di siyaara bu baax sëriñ Basiru Mbàkke Abdul Xaadir sëriñ Abdou Samad mu Cheikh Sohay bu Mbàkke ak mbooleem njabootuk Cheikh Ahmadou Bamba gépp waa di siyaara tamit waa Tiwaawoon sëriñ Babacar Si Mansour ak sama sëriñ Cheikh mustafa Si Maktum ak njab moom mboolem njabootuk murtasidin wal murtasidaat di nuyu njabootuk alaaji Ibrahima Niass Kaolack njabootuk maam Khalifa di nuyu jamaatu Ibaadu Rahman di nuyu harakatul falaax di nuyu laayeen yi di nuyu mbaal ummatul islam bi yëpp ndax tey yàlla dogal na eh, l'islam bi yëpp tey jii ñoo bokk dundalanoo ayit eh, gi eh, kon ñu ngi leen ci ndokkeel di ñaan yàlla coono ñu amoon ci di woor ak di jéem a dàkk bëgg-bëggu yàlla yàlla nañ ci fekk ngërëmam te fekk ci te am ci yiw bu ëpp wiñ ci doon soxla woo di ñaanal tamit autorité politique yi nekk ci réew mi te ko tàmbalee ci ki nekk ci bopp bi muy euh, président de la république ba Bassirou Diomaye Faye ak ki topp ci moom muy monsieur le premier ministre euh, président Ousmane Sonko Euh, ak mbooleem gouvernement bi yëpp di ñaanal tamit Modou Mame Diop mi nga xam ne moo jiite assemblée nationale mm-hmm. ak mbooleem député yi fa nekk yëpp mm-hmm. di ñaanal tamit opposition bi euh, ñi ci mbooleem ñi politique te bokkuñu ci biir euh, gouvernement bi mm-hmm. ak coalition yeeg atu politique beeg société civile beeg ñëpp loolu defe naa ne nuyoo bu mat la boo xam ne daal dina daj mbooleem kuy doomu Sénégal rek ñu ngi lay nuyu te di la siyaara te di la baalu àq di nuyu journaliste yi di nuyu artist yi di nuyu mbëri làmb yi di nuyu euh, euh, sportif yi ñëpp daal waaw ku ci nekk rek ñoo ngi lay nuyu di la sargal ci bés bi di la baalu àq incha allah baal ma ah? naa la yàlla na yàlla boole jéem. <laughs> amiin ndax sa yenn saa ma tooñ la sonal la lool min ma jaale waale rek. Euh, eh. xam depuis mu génn àdduna ak tey maa ngi doog a am occasion toog ci plateau. Mm-hmm. muy suñu mbokkum taalibe. Mm-hmm. muy Mouhamad Boun Abdallah Dionne. di koo xam ne mën nañoo wax ne sax dem gim dem rafet na ndax euh, da doon jéem a euh, taxawu réewam di jéem a def ay effort pour bokk ci liy soqali réew mi ak liy doxal réew mi ba loolu jural ko mu wut parti wala mouvement mu jural ko mu dem wut constitution euh, dem wut ay parrainage am mu jural ko mu fexe ba bokk ci ñi nga xam ne maanaam jàppoon na ne ni réew mi war a doxe am na ci ay xalaat ba ci biir loolu mën nañoo jàpp ne sax yàlla moom iza jaa ajaluhum laa yastaxiruuna saatan wala yastaqdimuun euh, euh, yàlla moom fu faatu jote rek euh, saadu ci dolli ko waaye jàpp nañ ne ci coono yi boole woor campagne wut maanaam ci lu mel noonu ci la ko tawat dabe ba yàlla moom ko ci kon tawit bi mu koy moom ajjuma ju mujj ci koor la kon jàpp naa ne euh, moom mën naa ñu am jortul rafet ci moom. ba nga xam ne euh, yàlla man na ko boole ci jaam ñi nga xam ne da leen di jéggal te yàlla na ko def daal di ko yërëm te yàlla na ko def dugal ko aljanna te sàmm njabootam gi fi bàyyi ak euh, ay xarit ak lépp lu mu fi bàyyi rek te yàlla daal fi mu féete woon njabootam yàlla féete leen fa fi ko njabootam féete woon fu ko raw yàlla na ko fa yàlla féete fa mu nekk. Euh, parce que homme politique la woon. koo xam ne borom xam-xam la woon. Euh, àndoon ak président Macky Sall. ci bu yàgg te ba muy nekk premier ministre. ànd ak moom bi mu nekkee président de la république. ba mission Macky Sall jeex. mu jóge fi kon jàpp naa ne sax dañ ko daan tooñe double biton Macky Sall. kon jàpp naa ne mission Macky Sall dafa mat moom tamit mission mu daal di mataale. Euh, yàllaa xam di boole. kon lépp daal yàlla na nekk li ci jub ak li ci jubul lépp li ci baax ak li ci dëng lépp yàlla na ko yàlla soppal li lu mat te fay ko ko ay yiw fa mu nekk te classe politique bi fi des muy waa benn Benno Bokk Yaakaar ak ñoom doon àndal ñëpp ñu jàll leen ko tey ñaan yàlla euh, mu sàmm leen te aar leen mm-hmm. waaw jërëjëf Cheikh bi macha mm-hmm. allah kàddu yi am na solo mm-hmm. rafet na en tout cas par ma voix Sénégal 7 présente ses condoléances les plus attristées ki nga xam te ne nii moom mm-hmm. mooy euh, famille wala ñi nga xam ñoom ñooy seq famille John bu Mouhamed Boun ah donc nga xamante ne nii tey jii ñu ngi doon amal lii di levée du corps bi ba daal di kaa jébbal boroomam yàlla na su sedd ci kaw te yexe ñu ko alors mu ngi noonu xam ngeen ko door nañu suñu émission ñu ci ànd ak euh, Serigne Cheikh Bara Ndiaye euh, waxtaan wi dina lépp loo xamante ni jàpp nañ ne lu soxal réew mi la ak tolluwaay bi mu gudd wala mu gàtt dinañ ko jéem waaye fi ñu koy tàmbalee tey ji wax naa ko mooy eh, ñu ngi doon amal li di ci suba si julli ñaari rakk yoo xamante ne nii ci ay dal fitre di korité eh, waaye li ñu nemmeeku dàmbale moo di ne eh, ren ji ci réew mu Sénégal wala ci àdduna wërngal këpp daanaka benn korité la ñu nemmeeku loolee Cheikh Baara Cheikh Baati ban jàngat nga ci mën a def waaw sant yàlla hmm, sant yàlla bu baax a baax euh, parce que euh, mënoon nañu bañ a koreendoo parce que bu fekkonte ne démb weer yu feeñul rek mhm. euh, ku mel ne ñun dañuy continuer te démb moo nekkoon séntu ba mujj ci ñi nga xam ne ñoom dañoo njëkkoon a um mhm. kon donc weer yi dafa feeñ démb ñëpp gis ko mhm. loolu day wane ne kon eh, xëy na mën nañoo rafet njort ci jullit ñëpp mhm. jàpp ne ñi ñi wori mhm. ñoom ci ay eh, duñ gis woor duñ gis weer daan na ñoom bëggu ñoo waree ndoog ibaadu yi wala bëggu ñoo waree ndoog tiijaan yi kon gisuñu ko nga xam ne ñoo ko tay ne gisuñu ko eh, ñu mel ne ñun ñi nga xam ne tamit léeg-léeg ñeene gis nañ ko ñu nit ñeene gisuñu ko daal di xaaraat ba beneen bis ñu woor day wane ne ñu nit ñu ko gisoon maanaam amuñu benn problème pour bokk ak ñoom wari mm-hmm. loolu rek laa ci gis mm-hmm. mooy ñoom ñi nga xam ne dañuy faral di njëkk woor wala ñuy njëkk a ñu ngi leen di wooye ay ibaadoo surtout mm-hmm. damay bañ a caricaturer euh, jàpp naa ne amuñu benn gene ci njëkk woorandoo ak ñun da dafa fekk ne xëy na ñoom dañuy jàpp weer yi feeñ na ñu nit amuñu problème ci wareendoo ak ñoom mais dañuy jàpp ne weer yi feeñut tey bi nga xamee ne weer yi feeñ na ñu ñoom ñu gis ko ñun ñu gis ko amuñu problème ci dañoo wareendoo te gis nga lépp jàmm la kon yaakaar naa ni ñàkk a waree ndoog itam mm, dafa rafetul nag xëy na mm-hmm, mm-hmm. waaye du dara maanaam gis-gisu diine la mm-hmm. waaw kon daal mm, ni mu amee ren ji yàlla yàlla na wéy ah, ñuy ñuy ñuy bokk ñu ñëpp di julleendoo donc di woorandoo di defandoo lépp daal alors ci ci biir tey ji ci lii di korité gi tamit euh, gis nañu ne euh, imaam yi ñu ci bari def nañu ay xutba Euh, xutba yëpp daal di tënku ci daanaka ni ko njiita réew mi di son excellence le président Bassirou Diomaye jaxaar fay defee mhm. mooy di woote ngir lépp ñu àndandoo booloo mooy unité euh, déjà euh, ndax lu baax la ci ndoorteelu li nga xamante ne ni moom mooy gouvernement bi mu